Et enfin, le dernier dossier concerne le combat final. Et ça, ça ne date pas de longtemps. Parce qu'entre le 1er et le 2 juin, à la suite du prononcé du verdict de la Chambre criminelle ayant condamné Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse, le pays a été à nouveau secoué par des séries de manifestation émaillées par des scènes de violence, des actes de destruction les biens publics des manifestations au cours de laquelle des pertes en vies humaines ont été notées. L'université Cheikh Anta de Dakar a été attaquée et saccagée. Le ceci a été également saccagé et brûlé. Les dépôts de Dakar Demdik ont été également attaqués et brûlés. Divers tronçons du BRT ainsi que l'autoroute à péage ont également subi la fureur des manifestants. des maisons des autorités politiques, judiciaires, administratives ont été saccagées et brûlées. Des images montrant des manifestants lourdement armés et circulant dans les rues de la capitale ont circulé dans les réseaux sociaux. L'objectif final était de marcher sur le palais pour y déloger le président de la République. Pour y répondre et ainsi répondre à l'appel et l'invite de Ousmane Sonko qui a ouvertement appelé ses partisans à le rejoindre dans la capitale pour mener, pour mener l'assaut final contre le président Macky Sall. Ainsi, plusieurs dizaines de manifestants ont été interpellés entre Pikine, Rufisque, Dakar et Guédiawaye, inculpés et placés sous mandat de dépôt. En tout état de cause, toutes ces procédures que nous avons énoncées, qui ont causé des dégâts matériel inestimable à l'heure où nous tenons ce point de presse, ainsi que plus d'une quarantaine de morts entre mars 2021 et juin 2023 convergent inéluctablement vers Ousmane Sonko. Le ministère public que je représente dispose de des poursuites. Par conséquent, tant que les faits ne sont pas prescrits, nous pouvons toujours les engager. Ainsi, nous avons décidé de mettre en mouvement l'action publique. C'est pourquoi ce dernier est aujourd'hui en garde à vue et nous sera incessamment présenté. Car sa procédure est pratiquement bouclée. Et à cet effet, il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Ce qu'il faut admettre et reconnaître également, c'est que le Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme. et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. Ça a été un peu ridiculisé dans les réseaux sociaux en parlant qu'Ousmane Sonko a été arrêté pour vol, mais en réalité, c'est l'élément déclencheur de son arrestation, qui était d'ailleurs imminente. Par conséquent, il sera également poursuivi pour vol. En conclusion, nous estimons que l'État garant des libertés individuelles, collectives et de la sécurité publique prendra toutes les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ordre et de préserver les personnes et les biens de Je vous remercie de votre aimable attention. C'est en ces termes que ce point de presse s'achève. Merci. C'est pas une question, c'est juste une précision. Entre la, les déclarations de Ousmane Sonko et la commission de ces actes-là, est-ce qu'il y a un lien établi? Non, c'est pas une question, c'est juste une précision quoi, par rapport à ce qu'il vient de dire. Mmh. bien sûr bien sûr suñu mbokk journalistes yi ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewaay fii ci tribunal bu dakaar ndax euh, li ñu dajale tey dafa nekk loo xam ne dafa am solo si réew mi parce que koo xam ne ñu koy ooy Ousmane Sonko mu nekk politicien bu mag mais nekk également citoyen moom la yoon teg loxo te bala ñoo def waxtaan wi waxtaan nañ ci ak ñi nga xam ne ni ñooy suñu ay kilifa ñu gis ne dañu war a génn wax ak sénégalais yi parce que koo xam ne dafa am cër ci réew mi. suñ ko yoon tegee loxo kon jaaru na ñu génn wax ak ak askan wi wante liñ ci mën a résumer rek en wolof mooy euh, ni ma ko waxee sànq en français dafa am mbir yoo xam ne tant que yoon neewul mënatuñ ko topp heure bu ñu neexee parce que procureur de la république moom mooy xool peese kañ la mën a topp nit mën nga def dara mais tant que délai de prescription bi mooy yoon bi nga xam ne ni yoon daf ne tant que délai boobu jeexul mën nga ci topp nit procureur moom mooy xool kañ la ciy topp doomu aadama bi loolu moo tax euh, ñu jël décision topp Ousmane Sonko dégg naa sax ni ñu koy waxee ci réseaux sociaux yi ñu ne dañ koy topp ndax dafa sàcc téléphone non euh, nekkul sàcc téléphone bi kese lañ koy toppee mais toujours et il que moom publier na ko wax na ko ci réseaux sociaux nee na arraché na violemment téléphone benn gendarme bu jigéen et que juridiquement loolu li ko yoon di tuddee mooy soustraction frauduleuse mbala ñu wax ko vol à l'arraché mais toujours est-il que yoon prévoir na loolu mu daf nga xam ne nii dafa wàccoo ak yoon mais li gën a tax ñu koy topp mooy ces appels à l'insurrection boo xam ne comme ni ngeen ko déggee sànq ci vidéo bi ñu teg moom moo ko wax moom moo oo Sénégalais yi continuer di leen oo depuis mars deux mille vingt et ba biñ koy jàpp pour wax Sénégalais yi ñu génn ci mbedd mi nañu génn reyante nañu génn daaneel nguur gi nga xam ne nii moom moo fi nekk alors que nguur googu yoon moo ko fal donc euh, dañ ko war a bàyyi ba mu jeex mais moom xaarut loolu ci ay ay ay appelam ci ay waxtaanam ci ay ooteem nee na nit ñi génn wax na ko ay yoon yu baree bëri nee na comme niñ ko déggee sànq ci vidéo bi en wolof nee na ndaw yi ñoom ñëpp fi toll nii yàlla def na am nañ doole ju ma sëkk ak barke te kuñ ci jox ngànnaay dinga génn xeex nee na dañu war a génn ndaw yi dañu war a génn dem doxi pale jël président Macky Sall génne ko ci mbedd mi di ko traîner comme ni ñu defoon président wu Libérien bu Libéria bu njëkk ba mooy Samuel Doe nee na nit ñi ay partisans ay ndawam dañu war a préparer wu instant bu nekk minute bu nekk xam ne dañu war a xeex bëri na bëri na bëri na déclaration yu mel noonu yoo xam ne moom moo ko def ba déclaration yooyu jural na Sénégal ay néew yu bëree bëri parce que soo xoolee diggante mars deux mille ak juin premier et deux juin deux mille vingt li ñu am ci ñu gaañu ñu ñàkk seen bakkan ci xew-xew yi ci appel yoo xam ne Ousmane Sonko moo ko def ëpp na ñaar fukk et que soo xoolee néew bu nekk dañ koy rattaché ak jëmmu Ousmane Sonko parce que appel yooyu su amuloon manifestation du am appel am yooyu su amuloon nit ñi duñ génn ci mbedd mi ba mu am ñu fii faatu par conséquent ñun dañuy estimer parquet dafa estimer que ne appel yooyu dañ ko war a topp. xam naa ne nit ñi dinañ ne li tax boobu ba léegi defuñ ko li tax boobu ba léegi toppuñ ko wante dañ leen bëgg a xamal ne procureur moom moom mooy am opportunité wu poursuite mooy nit ki mën a def dara mais tant que neewul jëlul décision ne daf koy topp amul dara loo xam ne war nañ ko ci mën a wax jël décision ne daf koy topp fekk li mu koy toppee yoon jeexalu ko procureur am na possibilité topp ko te que li ñuy topp Ousmane Sonko dëpp c'est depuis mars 2021 ak li fi jot a xew yëpp ci ay néew ci ay yàq ci ay euh, ay ay yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ay citoyen ordinaire yoo xam ne seen yoon nekku ci ñu yàq seen place yàq seen bërëb yàq seen ay kër loolu moo tax ñuy topp Ousmane Sonko li ñu koy toppee également mooy dafa am euh, ay kuréel kuréel yoo xam ne bëri nañ wante suñu jàmbaaru euh, police bi ak gendarmerie bi liñ ci jot a gis mooy ñett ba ñeent mooy ñu ñuy wax euh, euh, mortel combat dossier boobu jaaroon na fi jàpp nañ leen dayet mooy àpp tey bi nga xam ne ni moom lañ njëkk def te bi mu ko defee li gaañu ci ay doomu sénégalais mat na daanaka fukk ak juróom-benn mooy appel bi mu njëkk a def bi loolu amee également am nañ dossier boo xam ne force spéciale la force spéciale bi ñu ko génnee nit ñi sax commencé woon nañ di ridiculiser mbir mi naan affaire yi de force spéciale la mais en réalité les gens se sont rendu compte que ne bi ñu ba jëmmi jamono xam nañ ne niveau spécial bi ndoo woon loolu mooy continuer di am parce que après gis nañ dossier commando gis nañ après dossier cocktail molotov ak événement yi nga xam ne nii ñoom ñoo amoon entre le premier et le 2 juin 2023 te yooyu yëpp dañ ko jël di ko teg tey ci ndoddu Ousmane Sonko parce que boobu ba léegi ñu ngi koy wax moo wax na ko du benn yoon du ñaar yoon du ñett yoon nee na ay ñoonam ñu ngi leen di jàpp pour appel à l'insurrection li tax moom chaque jour mu wax ko te duñ ko jàpp tey nag dañ koy wax ne tey mooy bés xam ne ni ci la yoon décidé jàpp ko pour appel à l'insurrection et c'est le cas dañ koy topp également pour euh, histoire téléphone portable bi euh, liir naa déglu naa tamit ñu naan euh, Ousmane Sonko est-ce que téléphone portal kese lañ koy jàppee non Ousmane Sonko kenn jàppee ko téléphone portable kese bien vrai que yoon li mu def sàcc la ko tuddee parce que amutul beneen expression quand tu arraches violemment et volontairement un bien appartenant à autrui et que rendre loo ko yoon soo xoolee article 364 du code pénal sàcc la ko tuddee donc quand on parle de vol les gens s'offusquent pourquoi il a été arrêté pour vol mais juste dañ leen bëgg a wax ne sàcc càcc googu dafa dafa dafa dafa gaawal dafay gaawal rek li nga xam ne nii moom lañ naroon def li nga xam ne ni tamit dañ ko waroon def ba pare daf ko jàpp ko pour appel à l'insurrection loolu mooy li nga xam ne nii bëggoon nañ leen ko wax mais également également également ñu rappeler leen euh, xëy na dama ko omettre un tout petit peu en français mais ñu rappeler leen que ne liñ jàppee Ousmane Sonko liñ ko jàppee jotewul dara dara absolument rien à voir avec la première procédure il a été condamné par contumace loolu dama bëgg mu leer également ci bopp nit ñi ñu ngi ci ñu ngi ci débat di ci wax il a été arrêté pour autre cause Ousmane Sonko li ñu ko jàppee leneen la nekkul dañ ko jàpp parce que contumace la non le parquet du moins l' autorité l' état avait la possibilité de le faire mënoon nañ ko def bu yàgg parce que la décision est devenue définitive toutes les formalité de publication def nañ ko le parquet n'a pas opté procéder à son arrestation parce qu'on lui tendait une perche ou se constituer prisonnier. C'est pourquoi on ne l'a pas arrêté pour les faits pour lesquels il a été jugé devant la chambre criminelle et condamné à deux ans d'emprisonnement ferme avec contumace fii li ñu koy jàppee mooy appel à l'instruction mooy sàcc ak télé téléphone mooy loolu lañ koy jàppee donc contumace bi ba léegi dara changé wu ci dara yëngatuwu ci contrairement à ce que lu nit ñi di wax loolu la bëggoon apporter le Euh, leeral ko ci kanamu sénégalais yi euh, di leen wax ne di leen wax ne euh, di leen wax ne Ousmane Sonko comme ni ñu ko waxee sànq rek mooy li ñu koy tab li koy toppee appel à l'insurrection affaire u terrorisme affaire affaire ay ndell yi nga xam ne ay manifestation am nañ ko ah association de malfaiteurs yooyu yëpp wax nañ ko ci français je pense que tekki ko ci olof dafay xaw a liggéey Donc par conséquent, c'est tout ce qu'on voulait mettre à votre disposition et le parquet reste à votre entière disposition pour des informations complémentaires. Également, si nécessaire, si nécessaire, après de d'Ousmane Sonko, peut-être dinañ ñëw jàkkaarloo ak yéen mbala ñu dafa leen communiqué comme ça ngeen xam exactement yan infraction lañ koy toppee parce que dinañ ko defaree léegi ci kanam incha allah merci beaucoup.